Les amis des Sport TV, merci encore, gars, de la confiance renouvelée. Merci de des likes, merci de des abonnés. Merci également de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé, gars. Chaque fois, de partager des informations. Box Sénégal, il fait folle maintenant. 14 régions du Sénégal, la World Cup, nous avons dit à Dieu également qui est l'hôpital et qui est de février. Nous avons borom fog sen bop ñu wër gam ñu nek ci kasso yi nga xamné aussi erreur judiciaire gi ñu lañu deful mo leen fa yob suñu borom gëdal leen fa del wat leen seen jabot ñi dëddu aduna suñu borom xalé leen aljana fi daw ci gaay té yéxé ñu on avance ensemble dans la magie de sport TV l'actualité

sa dañuy waxtaanee nak li nga xamne moy donc li di donc yene kay ak sunu lamb bi ne balagay 2 vise une 8e contre Boy ci nga xamne nak moy victoire yi am ci euh, wa Pikine wax ci aussi Modou Anta bi nga xamne ne japp nañ ne promoteur yi dal dañ ko daal setan wax aussi ci combat bi nga xamne moy fils de bala ak doomu dangu ñu japp ko ci juin 2023 Tribune Sport ñu le moment de rugir pour suñu gaynde yi war a nga xamne nak moy wa Qatar Qatar mi ñom dañu dañoo woné nak wane nag seen xar kanam gi war a rafet contre équipe nationale bu Sénégal Aliou nak né ñom dañu nekk do au mur yene yéenekaay bi di record ñëw ne impératif de victoire euh, Si Aliou Cissé mom nee on sait comment s'en sortir xam nañ ñu ciy génnee nee on n'a pas droit à l'erreur Le Koulibaly moo ko wax mu ne fi mu ne ak njuumteef jeex na sax nga xam donc ci li di jongante bi légui nak euh, pour dadi di euh, gagner ki nga xam ne Qatar il faut que Sénégal yi daal di wane seen xar kanam gën rafet comme ni nga waxé rugir faire renaître l'espoir yéenekaay bi di stade moko wax né aussi vous allez voir les vrais lions loolu nak Sabaly moko ko di wax Aliou Cissé on va marquer des buts dinañ duggal ay buts loolu loolu la wax Félix Sanchez aussi dal di koy euh, tontu li nak di gaynde yi nga xam nak ñom ce sont des légendes du football Pogba euh, Drogba plutôt excusez-moi hein, ak qui euh, dit di donc Demba Ba hein, nekk ci photo bi ak ñom Yaya Touré entre autres donc di dem fofu teewal dëkk Afrique dal di di supporter ngeen gis aussi nga moy Roger Mila Roger Mila am nañ ko doon setan hein 90 hein 94 Roger Mila Maka Maka Makanigi gars yi yéen a ngi fàttaliku loolu mom la dañ ko décorer ci li nga xam ne mooy donc ci coupe du monde bi ak sargal boobu ñu ko sargal Cristiano Ronaldo qui entre un peu plus dans l'histoire nekk nag le joueur bi nga xam ne dugal na ci cinq mondial yu bokkul ah dugal septième CR7 euh, donc qui aussi vient de battre aussi un autre record mom ak Messi dugal nañ ci cinq coupe du monde yu différentes ki ngeen gis également di Bukari Momita, it ah, ba mu ni du contre ñi di Portugal dafa def célébration Cristiano Ronaldo ci kanamam donc aujourd'hui encore le Ghana des mo dugal ñaari bi yu ci coupe du monde pour un pays africain Alejandro Balde nenañ nak mi gëna jëgé a signé ci signer contrat prolonger contrat du côté donc des Blaugrana du FC Barcelone on parle bien entendu de euh, li nga contrat pour 2027 mais aussi bien pépite boo xam ne nag Real de Madrid la du football équipe de France dit Kamavinga Camavinga euh, parfois qui dit Modric da un boyo est-ce que xam nga ne mënoon parce que euh, man Kamavinga plutôt ba muy juddu Modric mi 17 ans pour voir les 17 ans d'âge mo séparé ñaari joueurs yi kii nag di Neymar mom nak gis nga ko de mom génnee inquiétude ak tàng bi ni mu néewee médecin nak nee dafa rëq rëq nak la am donc légui nak li ñuy xam moy rëq rëq bi ñaata euh, temps la wara a daal di durer fi ni nak loolu la waa brésilien di xaar pour xol ko ndax Neymar dina mëna jouer wat am déet ki nak di Ismaël Jacobs gars yi dañ ko daal di flasher à 35 km heure hein. donc mu nekk donc le quatrième joueur bu gëna a gaaw ci coupe du monde bi ki di Ismaël Jacobs kéro ba mu duggee donc ci match contre équipe de du Hollande. Donc lui qui va être titulaire aujourd'hui sur le flanc gauche. Le sourire de l'équipe nationale du Sénégal, notamment de Idrissa Gana Gueye donc Ismaël Spirissard, Sarr di ñaan yàlla nag euh, rey bii nii gars yi ñu gisaat ci confiance donc par rapport à John bi on avait aussi que les jeunes pépites dit Pape Matar sar Ahmadou Bamba dien ou Bamba Deng dien ak Moussa Ndiaye aussi Nyom ñu ngi wane aux entraînements dit

donc di ngeen gis léegi classement bi nga xam ne moom la ñu leen waxoon proposé woon lañ ko ñu génnewaat ko gars yi confirmé ko tey muy 4 2 3 1 gis ngeen ko donc bu kii di donc Iliman Ndiaye qui va jouer donc derrière juste Boulaye Dia donc nekk également le lien entre le milieu de terrain et l'attaque mais surtout aussi nekk li nga xam mooy rôle faux neuf rôle 10 lay daal di jouer ci match bi Iliman Ndiaye match bi nag gars yi 13h lay doon heure sénégalaise en hein. 13h lay doon heure sénégalaise donc suñu gaynde yi fas yéene donc am ndam tey bu fekkee ne dañoo bëgg am chance chance am yaakaar dem ci li nga xam deuxième tour Comme du monde il faut que ñu door tay ñaan yalla également Hollande door Équateur nga xam ne bu ñu déjà ak Équateur aussi buñ leen dooré dina am. donc li nga moy donc euh, victoire bu ñu assuré dem qualifié gars yi nag joxe leen seen xalaat woy leen di like woy leen di abonné on se donne rendez-vous tout à l'heure après le match aussi on avance ensemble Bien ngeen Jeff